Uh... naan bikum ñeenti xat moo dese Macky Sall njiiti réew mu mu jeexal ci mandat xam bi par partem bii nag di APR fa mel ni daal ñoom tamit fa ñuy jeexal la daloon PS ak PDS moo leen nar a dal te mooy yéene kaay ñu ko xamal a yaaw seetal responsable APR yu bari fa ñoo yéeg ci garab gi ba pare di dog bànqaas ga jàppal na tamit APR ci boppam ma ngay lekk ay doomam yoo xam ne ëllëg waroon nañu mën a wuutu Macky waaye ña ngay reyante ci seen biir yéene kaay Mbaye Niang Baara Ndiaye ak Mbaye Ndiaye Sud Quotidien ne coowal ñetteelu mandat bi ak kan mooy wutu Macky bés bu fi bàyyee ko ca APR xiiroo ŋaayoo bañ nekkee tax yéen a kaay bi na Macky daal mandat am bu mujj bii nii mandat piège la maanaam dëgg sërëxën ci boo moytu pour mu am ci ndam dana jafe pour mu liggéey ci réew mi dana jafe ndax jafe-jafe ya ko wër ca ña ànd ak moom ñii ñi ngi yeeru ngir remplacer ko ña sa des na leen du fi xamee sóori kaba ma sóori léegi Macky ndax fa koo kaj ginnaaw bu mu waxee na Macky mënta am ñetteelu mandat boobale kenn déggul mu wax waaye tey àdduna ci le quotidien yéen a kaay ah. a yaaw seetal sóori kabaa nee na bukki gaynde poson nit ku dangereux ba nekk APR du kenn ku moy yaxam mbay moo yàq APR mooy lu nit ñi waaye man nag li ma wax bañ dàq ma nitu dëgg ku nekk war ngaa wax ci ñetteelu mandat bi noo ko gisee même buñ la dàqee Moustapha Diakhaté tamit dégg naa Macky kaj na ko li ma koy sant mooy na ko jëliwaat teg ko ci betam moo gën ci moom de nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne responsable APR yi xiiroo ŋaayoo ñàkkante xeex ba ñu nekkee jéggi na dayo rawatina ca Parcelles Assainies jëwriñ ji di Ba bañ fa doon attaqué tontu na de a yaaw seetal fa dem assemblée ba génn gaay laaj ko mu leen dëgg la ñun waa APR am nañ problème ci suñ biir waaye loolu danañ ko régler ci suñ biir ñu ni neen la ñoo bokk te benn njaboot lañ yéen yi mën ta ñàkk ñi nga xam na nag ñoo mer ba di ma attaqué danaa leen dalal ñu waxtaan ngir juboo kàddoom yaa ngi ci Vox Populi waa Grand Place na ko yaa ngi sofantal yëf de na la wóor na yombewut noonu Amadou na a remplacer Macky mu ne leen ay ak wax ju amul bopp ak géem man Macky moo ma def loo politique am ci man confiance ma di ko liggéeyal lépp ngir suqali réew mi Abdoul mbay mel ni ku naan ko mënoon ngeen a jëfee seen xam-xam nag ndax yéen leen denk réew mi waaye wàllu koom-koom doxalin bu bëri Macky ci man la ko toppandooree nga déggee ci ne Macky amul xam-xam bu mu suqalee réew mi kàddoom yaa ngi ci laas yéene kaay turbine yéene kaay ne waa Sénégal yéen jaaxlewu leen Ousmane Sonko fan la nekk kenn déggatul mu wax ñaari fan yu nekk Ousmane nang ci rajo yeeg télé bi di tontu wante gaay Macky Sall lu ñorog lu ñor lépp mu wax waaye fi mu toll noppem gi ndax léegi fa découragé wala boog ci ay pexe la nekk ñi am pexe pour wàññi courant bi ak essance bi du ñenn ñu may état bu Sénégal a ah, yaaw pétrole bari ko pétrole bi léegi fa wàññeeku daanu ci suuf 30 pour cent yi adduna bi yëpp pétrole fa fee yomb léegi ba mu ëpp ba tax les éco yéen e kaay na xanaa boog ngir yàlla Macky danañu dimbale wàññi courant bi ak essence bi amul sax ñaan far force la ko war a wàññee askanu Fatick fa Macky fekk baax ne ñun de Macky fa tas suñu yaakaar ah lëm ñu digoon dara la fi defu tey la Fatick gën a ndóol ndaw ña amuñu xëy xanaa dawal Jakarta mouvement taxawu Fatick ci wen katëréer yéen e kaay xamul luñ bàyyil Macky ñeneen nañ ko ñeneen ñu ñu nar a weddi nag boo mooy tuut mooy dialogue bi ndax sénégalais yëpp tey ci talaata ji ngi xaar seen daje mu am solo bu ñu war a amal jëm ci wax sénégalais yi élection locale yi maire yi kañ la naka lañ koy defee ndax fa ñuy wotee ku ëppale xob nekk maire wala affaire tappale caaxaan-caaxaan yu ñu def di fal maire yoo xam ne seen waa dëkk bëgguñ leen ndax loolu fa fiy jógee société civile bi daal nee na nañ fi andi jëwriñ boo xam ne moo yor wàllu élection yi nga xam ne du far fenn les éco yéen a ne kon sénégalais yi ñu ngi leen di déglu tey ci le soleil yéen a kaay déglu tey mooy landing sawane njiital ànd jëf nangu na na gauche bi bougé wut sénégal mu ëlbatiku ne yu màgget yi nekk ci parti politique yi ngir yàlla nañ bàyyi xale yu ndaw yi jiite parti waaye nekk ci parti ba bejjaaw ba màgget ba mën a toog sax wax la ngaamu ca rek yéen ñi fa ñaaw laneen lu ñaaw lu nar a dal Mamadou Diop ISEG mooy tëj kaso xam nga léegi yoon fa ko teg loxo tey nag ci talaata ji lañ koy defeere mu dem jàkkaarloog procureur l'observateur moo ñu ko xamal lañ koy tuumaal nag mooy détournement mineur jëflante xale bu jigéen bu amul fukki at ak juróom-ñett ñooñu alalu procureur kenn du leen laal yokku ca nag wann loo ko lor ba pare bañ ko ko xenu ndax tuuma yi garaaw na te enquête bi fa koo taqar ca lañ koy tuumal nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne jàngoroy coronavirus fi mu toll nii nag fa mel ni ku say tasaaroo na ci adduna bi ci anam gu jéggi dayoo mi ngi rey nit ñi ni nu ma la mënta wax direct news ne man damaa xamul Sénégal nag ñoom lan moo tax institut Souleymane Mbuub duñ ko boolee ci yëf yi faj meeg analyse yeeg yi mel waaye nguur gi moom loo wax rek ñu ne institut Pasteur Pasteur rek sonn nañu waay wujj lu baax la li baax nag ci réewum Sénégal jëm ci jàngoro jooju coronavirus mooy ne ba léegi kenn amaatut ko fi te ñett ñi ko fi am jamono ji tey analyse pour xool ndax wér nañ wala wéru te am nañ yaakaar na danañu wér su ko defee jàngoro yi jeex ci réew mi source ay yéen a kaay ñi ko xamal tàggat yaram ñaar téeméeri millions yu manqué juróom moom la senegal war a génnee ci ay ferema suñ jongante Guinée Bissau aller ak retour record yéen a kaay ñi ko xamal la mu ñu xamal moom stade yéen a mooy na Tottenham Mourinho tey la seen sànni tàccu de Leipzig la ñuy fekki ci aller ba fañ leen mbuqi woon benn bal ci dara sunu lamb yéen a kaay di ñu xamal na Alioune Sarr njiital ji teg na daan yu métti ay xam na ñu mu aj ñaari at ñetti at ba juróomi at yoo xam ne dootuñ arbitré waaye arbitre ba ñuy wax Sitor nduur moom fa ko aj giir ak dundam dootuñ arbitré ti mbata kaaf wala FIFA nga di ma liggéey loo xëy na ma dàq naa la su fekkee ñàkkoo fayda amoon nga kayit ya la war dem leen ci yoon rek